ñoo ngi ci boxe El Hadj Iba Ndiaye waaw ñu taxaw un très grand champion ñu gis ko muy raay benn maal bu rafet ginnaaw boo nuyoo nga wax ñu maal bi mooy kan. waaw salaamaaleykum maa ngi leen nuyu ñëpp kenn ku nekk tur sa maal bi moo tudd Idi Ñoo waaw doomu Mahfouz ak Jeewo waaw maa ngi ci 3 ans 3 ans waaw 3 ans waaw. inscrire nañ ko pour mu dugg. waa waaw da du concours ni ci kanam. waaw inscrire nañ ko waaw. day ñëw yëngal affaire yi. waaw loolu laa bëgg de loolu laa bëgg de xam na. mbaa duñ ko door mu waaj. Ah, ko de bëgg naa bëgg naa dugg daal daal. wala mooy door gaay mu waaj. loolu laa bëgg de. Ah, waaw waaw daa ma gaay daal. naka ngeen gisee production. ah production am moo jur moo jur yii moo jur bi ak bële ak bee ñett la moo leen jur waaw moo leen jur waaw. nga fàttali ñu seen adresse ak seen numéro téléphone. maa ngi dëkk eh, Bérézère Ibi Ndiaye Dieng maa ngi dëkk ancien route si Louga waaw ancien route la fa laa dëkkee fa Bérézère bi nekkee numéro téléphone bi 77 472 87 23 waaw moom mooy numéro téléphone bi waaw.